ذكري والقام حياة أحمد لا تتنا سرمدا ونبوة سوي الهدى عن قطيها بالقلم المدني أكرم بذلك الكتاب في هداه والصواب فيه القطواب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء وكل شخص الحادى فيه وألم يجهد بتوات الأفراد من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى أمتنا soxna Mbacke Gueye sa kaala gi yal na rab di ko ñaanal képp koo xamante ne am naa ak yow ak bokk mu wax ni gan man nga ko aaye lu ne ba mu des ñibbi nit li loo terale gan rekk bu ñibbee dana ko ay bokkam waaye moo ko njëkk yëg ci boppam bu masaan jóge ngexoo ñëw Touba màggal si ànd ak magam wala mu ànd ak soxnaam bésu kero ngay génn sam néeg dalal ko ne ko néeg bi yaa ko moom fa lay nekk ba màggal gi jeex tàkk mu delluwaat ak gan gu mu mën a àndal bu yeggee campement bu déwénee du bëgg lu àndaat moom ñëw ndax teraanga joo koy teral mu wax ni ma ñii la yàlla jur ñuy doon sa njaboot di ko tàmbalee ci Abdou Khoudous seen ma ca Espagne mi nga xamante ne moom la ñu jox ndey faatu mu yar ndey faatu jël ko jox Abdou Khoudous mu ànd ak moom ci Touba gii ba yàlla ñëw ñu ànd dem bitim réew nee na musu ci am dara lu ko naqari ndax yow mii di ñaanal nag. Cheikh Mbaye Guèye mee nga xamante ni tey bu fi mbooloo mi dajoo nii ngir yàlla ak moom la ndax moo jël alalam ju mu ñaq ci ñaqu lew jël yaayam wan Seyduna Muhammad waaye bi mu ko defee da koo defaaleel ñi mbokkal ndey ak baay ñëpp ak ñi mbokk ak baay ndax kenn ku ne yéene di nekk seex mbay mi ngi ci yow tey dañuy ñaan sa kaala gi géey yàlla bu mu doon genn kaala yàlla na leen ñëpp yóbbu seex mais ko def leer na ma leer yàlla ni bu sañoon kenn du ko tudd sax naan seex mbay géey moo yóbbu yaayam màkk dan naan teel rek ndax xam naa jikkoom alaaji wax ni mi ngi ñaanal jarbaatam di Anta Gueye mii ndax dina jokkoo moom lu bare bare bari ci wàllu waxtaan ci wàllu jëmale bokk yi kanam di ñaaral Dior Sala di ñaaral képp koo xamante ne rek yaay soxna Mbàkke mii moo la meññ alaaji wax ni mi nga lay ñaaral bu baax am na mbégte xolam sedd na nee na déplacement bii mu déplacé wu ñëw tey jii ci yow seet si la amoon na ngant lu ko téye nee na am na ngant lu ko téye waaye nag danga koo ñor-ñor goo xamante ni munul toog mukk nga jóge Makka te ñëwut siyaar si la nee na mi nga lay ñaanal daal sa kaali gi yal na ràpp jàmm ci barkeb Serigne Touba ca xale yëpp kenn ku ne daggal ne bee mbakk di ñaanal nag sama yaay mii njaay ñu ngi lay ñaanal yàlla yokk sa fan yàggal ci kanam njaboot gi ca jàppale la bu baax a baax a baax te lépp loo feeñal ci waajur yàlla na la ko yàlla delloo léegi la ma woo ci biir waxtaan ak man yëkkati alalam jox ma ne ma boo demee ca baas mel na nga jël micro bi wax lii ma la wax loo li mu wax ci lu baax lépp sax mënuma koo wax waaye sama xol ak ni ci yéene wax ko te it mi ngi koy dégg ma nga ne toog ci garab gi nee da lay ñaanal bu baax fas yéene nekk fi yow nag ba keroog ngan ngi jeex mu delluwaat campement alaaji yaay soxna Mbacke Gueye nee na keroog mu départ jóge senegaal gii dem Makka bés bu ne danga ko bu bëccëgee da nga ko woo ba bi bi mu jógee ci avion bi wàcc Sénégal yaa ngi koy woo ci sa kanam nga wàcc nee na kon mi ngi lay ñaanal na yàlla guddal sa fan yow itam bu baax a baax waaw ci ñaanit yàlla na nga dellu Makka ndax keroog bu yàlla dogalee Cheikh mbay mais dem campement di fa jël soxna lu ca mën a am rek waxtaan nga ko moom ànd moom dox lépp ba mu mat man mii keroog këram laa añee maa xale yi këram la ñu yendu kon alaaji nee na daal mi ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa yàlla na la yàlla jàppale bu baax jànkati xasida yi ñëw nañu séen naa sama rek ñëw na ma ne toog ñang maa ngi lay siyaar bu baax waaye di ñaanal nag jànkatu xasida yi naan ndox xasida laa ko tudde moom moom sama waay la xam naa ci kanam tuuti dëgg yi nga bu baax wala si man abara an huwa ma tadabara fihi حياتنا للوام وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت دع من يكن فات عند الشكر الأقوام شريك الله ذوي الآداب الكرام أحمد ربي على كتابه الذي

أشكر ربي العظيم على كتاب الحكيم وفث فيه بعلم تفهم ذات صرفني كتاب ربي الكتاب بنذير كالكتاب به وظلمت من عتاب وجعلي باتي زقامي هو قليل وحبيب لي مغنيان لعقابي بيحب ومن الأبيب يطلب خير القلب